Salam alaikum la famille j'espère que vous allez bien on dirait super bien alors gars yi gëj vidéo ça fait presque 10 jours donc euh, Mango YouTube. alors euh, MD Sport merci beaucoup pour Mayo Ying voilà retrobi avec version 2021 2022 MashaAllah, allah rafet notre trop donc si vous voulez, mën contacter le numéro unique. Je euh, vous aussi sur Instagram voilà MD Sport amal alors je remercie aussi Eliman Nick États-Unis qui ma 10 maillots pour ma voilà je suis voilà donc si euh, vous bëgg je nga Instagram je nga flow ko live voilà mu jël la may parce que durant le canvier, il y a des donc Eliman amal jàmm sénégalais kontaan est content yow amal jàmm foofu nga bon gars <coughs> fétichers, suñu fenkat ñoom laay amaat tey ku ci nekk dina ma woon lim mën wala lim mënul ba xam dañuy fen wala fenuñu alors prince mu ngi fii nii ana Kounkandé <laughs> waa eh, eh astuce ah waay ànd bi nag moom dafa ñime saxaar toog defaru fas yéene fen ak mu sa cuuraay lan la le ak sa mbaxanam yi di mel ne luñ defaree tàngal nii <laughs> kunkande de mang lay nuyu yalla yalla nangu ziarra eh, ziarra yu mala de lama wax yox ziarra nuyu la wax wa ñu ngi sante yalla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam du nuyu mboolem kilifa diine mboolem kilifa arab bo xamne ya nga yewo ci rewmi senegal baxna fofu baax ak bitim rew yamale ko fofu yamale ko bitim rew yow wa bitim rew sax buñ la jappé di nga xam ne deug mi do salmina kala kalonde leydi marina gunas mi do salmina kala kalonde lady fouta yow la ju meuna lolo et puis sa saxaar si tamit mënu ma ko supporter de dënd bi laa bëgg mu fàtt dënd bi ginaar sax mënu koo fàtte prince yaa doon rëbb kande tay am nga ko mu ngi nii jàkkaarloog yow. c'est la première fois pour man am moom gisante. mosoo leen gisante. tey. bëggoon nga lii jàkkaarloo bi. loolu la soxla toujours. moo ngi nii nag en face de toi. yàgg na sénégalais yi. di xaara pour man am moom jàkkaara ci plateau. ok kande ya ngi dégg prince yàgg na laa rëbb. man international la bokuma gona gone yi. ah. Benjamin gona la ci man. tey nak dana ko dalal ba dama koy jangal lan mooy fétiche. Mhm. jàng ko lan mooy vodou. Mhm. jàng ko lan mooy magie bon wax ji doyna nañ dublu ci démonstration yi tay ñewuñ fi param pour théorie ñoo ñoo pour pratique kon tay da ngay wone tay dañoo ñëw pour wone ñewuñu pour wax ku mënul ba wolu yàqu yawa be sama yaangi dégg dafa ñew pour def ay kiraama ñepp di gis su mom def ben man def fuku ha wan ko man nigérian la ay kay di burkina nga nan nigérian ha burkina bi nga tan ay petit yu bari waa dañ ciy génnee benn lutax c'est pas un féticheur est ce que yaa ngi dégg baax baax waaye cheikh produit loo xam ci lii tappale lay def ñoom ñaar wala Kounkandé mii ngay jàkkaar loolu ok tappalet ak i naxaate ci lañ nekk buñ jógee fi ay xar géej ak ay dama yor ay vëddu magique ak di duul di dajale rek ay ñuy tappale sénégalais yi ñoo leen di nax gis nga Macky Sall na jëkk si ñii amul jotu sénégalais yi wala mu ubbi àll bu yaatu yóbbu fa ñëpp ku ne mën naa lii déglu rek bàyyi ma wuy ma muy wata nii ah. du dëgg si moom maanaam kii tappet la amul fit yow may nit ñi jàmm sa fit wi ay fen dong la lay jariñ balaa nga may xam ne bisom la amul xam-xam tappet la ah. suma juga jugee legi suma juga su ma jugee mhm. ko affronté day daw génn plateau bi. yow mi te léegi la koy def. jubal. pour na la du dara. ki xamul tus. yow xolal bo amé koy jaajal xam-xam jaayanti ko sama moromu féticheur ki ay garab lay jaay bokkoo yon yoon. te nag lay wal mhm. amul xam-xam. te fit amna fit na toog bu ah rek ñu ngi bis kii théâtre rek lay def fii. man man si man gis naa scénario yëpp xanaa xam nga boo demoon fii ay agence speech yooyu noonu ba ñu gérer sa communication billaay da dangay xew ba tey. fi taal dara plateau El Hadj Ndiaye loo fi def loo fi salteel wala loo fi yàq di nga ko fay. dama lay wan ay simbikat lañ amuñu xam-xam. léegi ku ma yaram tàng nag ngay def loo xamante ne. yow lii man de kii am na ku may ndirool. <laughs> yow gamba da nga saxal malboro ni topet bi no continue lu non wax sang mune no continue. yow da nga ni won so jige rek day daw genn plateau bi no da non wax ma dag ko wane ko amul xam xam ki rasulullah ki day fen bay fen en direct ki théâtre lay def du def dara émission bi dina ag ci jamm salam ku nek ñibi ci jamm ak salam yaakar ko de

waaw esprit bi xanaa aspirateur bi baaxul mu xewul de. dafa bañ pro tàkk du tàkk parce que amul ku ko muqi bàyyi. lii kon mii lan lañ ko war a def rek kunkande lii mooy bari xeetu magie. def def benn magique yi de waxuma def benn magique. mu ne kii mooy gamba daal. lu fu mu gamba <laughs> waaw yow sawaay yow ba du ma bay ay. léegi taal cigarette. léegi wan ñu benn kiraama yow. xam nga moom nee na moom wan na benn clama. jokkoon na man may ma leen benn kaas ou bien benn paan. mu wan ko. fii bool moo fi am de defal ñëpp gis yow da taal te doo jël briquet. du ko tàkk mais dinaa nekk di wax léegi. nga gis lu xew. da nga koy taal ba mu tàkk jëppët ci ay wax. wallaay azim. day sëkkul la tax noo kunkande presque moo la mën. yow ñu ne la paal gi ñëw. ma def loo xamante ne sa ne woon Nigéria bu ñëwuñu ko def. yow noppi sa tur ñëw na defoo fi dara fi ak sa mbalit mi yow waa Nigéria rek ñoo war a jug ci yow. toogal tey eh, mën nga toogal de. parce que yàlla rapport bi def concert na la invité show rek ngay def yëngal. yow doo dara. soo war a gis. defal ñu gis. Benjamin du fi def dara. danaa def loo xam ne ñoom ñaar kenn mënu ko fi def. yow mënul tëj sa gi. danaa fi fi def loo xamante ne ñoom ñaar. seen maam yi sax bu ñu demoon dekkiwaat leen ci armée bi sax mënuñu ko def. Eh, laajuma la. abalo siyangene kuruwangene wengo abawo diki zuza baari ayo ne sobri yobri yo nkirikiri ka a na-akụrụ ukwu ose adịghị arị ya elu odogwudịkpe mmanụ mgbe onye mkpọrụ nga na mgbana asị m taa ili ihe na-ele ọgụ imekwu nke nde asị m ọkụ bidoro ịgbala mmiri ya, ya. abụ m nwa amụrụla ala naijiria zụọ wa naijiria nwa amụrụla ala igbo zụọ ala igbo mere gịnị bụ oge njem oge mgbe ikpe mmanụ ile ibe nje gakwa onye isi m daraja were ka ya chọọ de ko sa adịghị ga ya ku kan bayal rek naan la ngay toppale bayal rek ku kan bayal rek sa waay si yow bu rek tous yow noppere yow ku de bàyyi ko rek bii di la di ko di seeta waaw ku kan may ko ngir mara soo ko bi mara soo ko bi rek balam miniya wonu menu ti ta ta ta la da me soo mara sala senegal ngona la Nigeria, jira ngona la mbotu abarangene o kalusio lii yëpp ci taal ab kayit rek abarangene o kalusio yow ya, eh xolal ma ngi bëgg son ci xaar bi de kii xamul dara c'est pas un féticheur lii gàcce la defet la ci Nigeria yàlla bu ñu dem soleil levant zoé ji ma ngi wax ko talal li wala ga tok ak say wex yi mmadụ soko bo gbaa na mmiri soko bo asọ ọkụ gbaa Eh prince mbasa mbasa yow ya saxaar sax dok fi def waxuma la ta setan rek señ bi dama nga tok bi sa ba cigarette yow iya, setan rek nga tok ma xam ku kande seetaan rek du def dara mais bul yak bul yak bul yak bay ni du def dara rek non non non non arrêtez de noppil ku kande dam leen caméra xana xamoo kuy jaxandi saw yaa ma jëkk tooy kuy jaaxaan di saw ñi ngay wo ñoo bañ oxlu bargu daggaat yi buran ci ñu ngi jooy fu mu nekk nii maara soko wunu nam miniya maara soko wunu man fuusi wa ahlu jarme ngana la Sénégal wangara ala daka ngano eh. ala mbonotu mais est-ce que du ci kanamu kii moo katakooli wa farfaraw ñëpp tey jooy bàyyi kunkande eh doy na c'est bon yéen xamoo leen dara yéen doo leen dara xamoo leen tous ay escroc ngeen ay sàcc ngeen yéen prison dong moom ngeen mérité sénégalais yi nag je pense que yéen a ko gisandoo nii du yéen lii ngeen bëgg ñii ngeen gëm ñii ngeen jàpp ne ñoom ñooy faj seeni ajo